tey jii moom dañu ñëw pour waxtaan ak yéen ci lenn li nga xamante ni moom mën nañu seetlu ni mooy ndeyu feebar yëpp ndeyu feebar yi nag bu ñu ko tuddee rek am na seen xel ci li muy xalaat muy wàllu ndoxum siti ndoxum siti nag wax dëgg yàlla gis nañu ni moom it bokk na ci feebar yi xamante ni moom moo sonal askan bi ci lu bare bare bare bare bare néew na loolu nga gis nit ki xamante ni moom du la wax ni moom jàmbatul siti fii bari na nit ñu fi ñëw loo leen fajar rek naan la wax ne la sëriñ bi nañu mën def ko amaale ci darapo ndoxum siti parce que bokk na ci mission ndoxum siti nag day tàngal yaram ndoxum siti nag mën na dem bay génn picc waaye mun na bañ a génn fenn sa yaram waaye day génn ay lésions ay démangeaisons maanaam ay erreur ay ay yaram bu didim buy weex yaram buy fett ak yaram buy damm ak ñuul yooyu yëpp dafa nekk ay symptômes yi xamante ni buñ ko doon tëbul dana bari lool ci doomu aadama ba ay tuur ndox yenn yu ci bare ba ci góor ñi ci néew doole néew kàttan jigéen ñi ci daanu sëy te am doom ñàkk am bànneex ci sëy moom daal kéemaan la feebar yi muy daal kenn mënu ko def waaye lu mu ci wuti doon képp ku may seetaan wala nga gis mbokk wala xarit wala am nandoo bu am ndoxum siti mën nga ko yabal géej waaye arrêt du bële kër Serigne Ba incha allah ci doole Serigne tuba ak Cheikh Ibrahima Fall dina bëri te def nañ ci tawfeex bu mu jàppandi pour ñëpp ñëpp ñi nga xamante ni bu ñu mën dalal rek dinañu mën a faj wér te du cher ndax duñ ci jublu pour dimbali askan bi traitement boobu nag quinze mille francs kese lañ koy defee loolu ko defee pour dimbale la ban ndax ñëpp mën cee nañ na sax naam am nañu tamit quinze mille sax mën ci ñoom waaye traitement ndox mu si ak li bi complet kon nag def nañ ci taw foofu Serigne Touba mbokk fay leen li ci des lépp suñu fay la kon nag dañ ko subventionné def ko benn prix forfaitaire de quinze mille képp ki nga xamante ni yaa ngi yéeg ndoxum siti sa yaram bu tolloo tarfatal ay ñëwal Guédiawaye arrêté wala kër Serigne Lamine Bara Fall sama numéro yi nii 77 169 45 45 Guédiawaye arrêté wala ndoxum siti jeex jaa ngeen def mbokk yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñiy faral di seetaan suñuy vidéo soo bañee suñu prochaine interview raw la bësal ci abone nga bësaale cloche bi incha allahu rabbi jaa ngeen jëf merci